asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi topp ci biiram ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar eh, di leen nuyoo fii ci Touba fii ci Pencum Paaleen fii ci kër Serigne Fallou Fall moom Serigne Aliou faal mboor eh, ci bis bu màgg bu tedd bi ñu fàttaliku sunu jàmbar ja Serigne Aliou faal mboor di ñaan sunu borom mu dolli koy ngërëm te dolli ay leeram bu baax a baax ci barke bu juróom bu teddoo maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina Serigne Ali Fall Mboor de woon kenn ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall euh, Babi Mouridina euh, waaye tamit di koo xamante ne bii Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina da koo tànnal ay wéjur euh, yoo xamante ne bii eh, mën nañ ko tàmbalee rek te maam mu Diagne Diop mi nga xamante ne bii moom moo jëloon maam Fat Diop Sayer jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina tey jii mu am ci Serigne Mortala Serigne Ali ak mboolem njaboot gi yëpp. Euh, yàlla dogal itam signal yi di koo xamante bii itam eh, mbiram digganteem ak ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim digganteem ak njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye liggéey bu réy bi mu liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim loolu lañ fas yéene nag tey jii xam naa ci tënk rek jàmbaar ji di Serigne Fallou di kenn ci njabootam euh, tey jii nag ñu fekk ko fii ci kër gi ànd ak mbooleem mbokki organe de presse bi yëpp ñu fas yéene rek bu doon kàddu yu tënk rek ñu am ko ci euh, kan mooy Serigne Aliou Fall Mbor rek Serigne Fallou ci tënk. delloo nuyoo leen ziar bu baax baax daanaka kat laaj bi nga laaj moom xaw nga ko tontu ndax am na ku ma doon laaj laaj bu xaw a mel noonu daanaka xëy na dama gën a guddal rek waaye euh, daanaka li nga wax laa wax rek ndax moom Mat Jaañ Jóob moomu jox soxna Fat Jóob Cheikh Ibra moo ko jox itam soxna Xadi Diop jox ko soxna Fat soxna Awa Jaxate Diop mu jur sëñ Basirou Fall ak soxna Xadi Diop mu jur sëñ Mbacke Fall loolu histoire bi nettali woon naa la ci dellusiwaat rek euh, Mamadou Diagne Diop moomu la doon woo xam ni mi ngi dëkkoon diggante euh, euh, Louga ak Ndar dëkk bu ñuy wax Mband tund woowu mu dëkkoon it da mbokk ñëpp nag. cosaanoo fa ñu xam ko euh, ki nga xam ne mooy taaw ki sos kokk yi euh, moom moom Mamadou Diagne Diop moom ñoo bokk ba ndey mu doon góor yéeme nag boo xam ni euh, wax nañu ne waliyu la woon Serigne Mat Jaxate monsieur Amsatou nett li nga ma ni Mamadou Diagne dafa tëdd ba guddi doon listixaar ñu leeral ko ne yow kat. war nga war si na laa yokkal maqaama daraja waaye fokk nga lakk ngërëmul waaju baax joo xam ni mu ngi sa gànnaar waaye nee na ci li mu mënoon a gis booba ci baatin daa jàppoon ne day jàll naar yi ndax gisut woon ci euh, ba ca dex ga yem ku ko fa waroon ko ko dolli ci noonu la waaje nag ñëw ndar rek maanaam ci gàttal euh, maanaam daanaka mën nañ ne euh, noo gi dafa dog ndax leer gi mu gis muy jollee ci Cheikh Ibra moom maanaam lu ko jaaxal la booba fekk sëñ Tuubaa yebal Cheikh Ibra euh, mu nekk fa ci noonu la mel ne ku xaw a aj yoon wa xaritoo Cheikh Ibra di ko jàng ngir bëgg a xam li muy gis ci moom ndax ni mu demee ci noonu tam ba jëmi jamono moom moom Cheikh Ibrahima Fall ne ko Mat Diagne laaj ko ne ko Mat Diagne ah Mat Diagne moom sa say tànk moom Mat Diagne ne ko ma day Fall lii ma yëkkati woon mooy rek dañ ma waroon ci baatin ne war yàlla sa borom war na ma war naa yokk sama maqaama sama daraja ci moom xamal ma ni nag fokk ma làq ngërëmal ku baax koo xam ni dañ ma tegtal ni bëj gànnaar la féete moo tax ma takkoon dafe woon ni damay jéggi dex gi ndax gisuma woon mënu woon a gis ku ma ëpp baatin foofa ba ma ko dolli nee na ci la ko man moom Cheikh Ibrahima ne ko ah ma ah, ma jaañ ni ko am nga ko bu da ko xamut li ma la ciy joxeel firnde mooy am na foo xam ne boo di yabaan dañ may sarax sarax bu doon waaye daa am lafañ bu fa ne daal di yëkkati ab nguur di jox euh, na ko jox lafañ ba ne ko mu jënd li ma poon bu jógee nga xam ne li nga bëggoon am nga ko. maam si maam maam Mate Diagne nee na euh, maam sëñ Mate Diagne nee maam Mate Diagne ak Cheikh foofa daal di jox lafañ ba ne ko dama jëndal Cheikh Rafal Poul lafañ ba ne ñàkkat jëme ko Poul mu xam ne nag kon la mu doon wër gis na ko mu daal di dagg yoon wax daal di jébbalu Cheikh Ibra bi ñu jébbaloo Cheikh Ibra ñëw fekk nag maam Pat Diop euh, way juróomu góor bàyyi sa maam Sayer Diop euh, wàññi génn àdduna te bokkoon nag maam doon magi maam Mate Diagne Diop moom ñu bokkoon ndey ak bàyyi mu nekk fa di doomu jiitleem mu daal di jël euh, doom moom maam maam Fat Diop moomu daal di koy jox Cheikh Ibra waa tund wa yëpp nag ne Mor Diagne nag naa day bëgg a këf ki ndax fekk ab dox buy dox buy taxawaalu ndax boobu Cheikh ko tegoon nga xam ne kon loolay day ni euh, la waaw ndax sëñ sëñ Aliou Fall moo ñu ko ne àdduna mille neuf cent mille huit cent quatre la nga xam ne kon loola booba fekk na Cheikh Ibra euh, maanaam feeñagut waaw dañ ko jàppee dox rek bu wér di yalwaan di taxawal waaw te fekk moom boobu ma nga woon ndar yow yaa ma gën a la la la la ñu ne ko la la jëlee ndax dafa dégg ñu ne ko li muy doom jiitlee ma tax waaye du jël doom ju mu jural boppam di ko jox ab dof mel ne moom kii di taxawal ci la meree nag daal di jël ma maam Awa Jaxate Diop daal di ko jox Cheikh Ibra moom Awa Jaxate Diop moo jur suñ Basiru Fall waaw sëñ Basiru Fall moo jur sëñ Talla Yaasin mi ak soxna Lalla Fall bi nekk Mbuur ginnaaw bi nag la ko jël bàyyi ko jox ko rakam maam Saliou Fall mu am ci sëñ Assane Awa Jaxate Diop mu jëlit maam Xari Diop moom itam jox ko Cheikh Ibra moom itam ni mu bokkee woon ak euh, maam Fat Diop la bokkee ak moom maanaam day doom bàyyi taxam moom itam mu am ci sëñ Mbacke Fall ñu jur sëñ Basiru Fall alxuraan ak sëñ Ngunda ak sëñ euh, Bada Mbacke fi bàyyi ko léegi jamono yee yàlla yokk seeni i laar kon maanaam pour kii rek ci euh, li nga wax noonu ci côté bi nga xam ne mooy côté côté côté côté ndayam waaw bokkut nag ak yeneen côté yoo xam ne mën nañ cee wax lu bëree bëri kon loolu euh, nga ni Cheikh nga tànnal na ko ay wajur loolu lu am la ndax wajur yooyu euh, xeetoon nañu mboolem ñu baax ñu nekk ci dëkk bi ku demee ne sëñ Mor Awa Balla mi ku demee ne sëñ Mbacke Daba Sarr ku demee ne sëñ Oumy Mbacke mu sëñ Moustapha Absa ak Moustapha euh, Massamba ak ñu bare bare bare ñoo xam ne ñoom ñëpp mu wax mu ngoog ba gelongal mam mam mam Masata Gaye ñoom ñëpp waaw maanaam ñooñu ay euh, mam Masata sax ñun ñii lay sunu xeet maanaam mam Masata bokk ci néegu seey yi ñun ñii lay sunu sunu sunu sunu xeet waaye ñi ma doon limal nii Cheikh seen mooy seen xeet waaw moom nag dañoo bokk ci gan bokk xam dafa yaatu xam naa man du ma historique mënu ma lijjanti dama ne soxna Njóoba bu dee moom dafa ko gën a mën a leeral wala soo noo mooy bisim fi jóge léegi waaw kon loolu nga wax rek mooy bu firndeel ni rek ay wajuur la ca des moom di wàllu Cheikh Ibra moom yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko yéen yéen yéen ñu gën a xam waaw kon loolu daal moo mooy sëñ Aliou waaye nag kan moo doon sëñ Aliou. maanaam fan lan lañ a fu mu jàngee wala fu jaar. Mm, waaw waaw waaw waaw dama bëgg wax ni rek ku doon laaj sëñ Aliou ku ko laaj lu mu bëgg ñu dàkkantalee ko ko. day wax ni nañ ñu ku bëgg Sëriñ Tuubaa la ku bëgg Cheikh Ibrahima la ku amul taalibe la koo xam ne ak taalibe mooy léppam te taalibe googu itam euh, jàpp naa ni na mu ko daan defe ñu di ko fekkee mooy na ko Cheikh Ibrahima daan defee ndax doomi Sëriñ Tuubaa yi daan ñëw fii di ko fekk di ko gane si la ko dalee ci sëñ Fallou ba ci sëñ Murtada jaar ci sëñ Saliou sëñ Abdoul Ahad ak mboolem ay sëñ Abdou Ndër beeg jamono yooyu ñu nekkee Mbacke ak maanaam mboolem ñu jamono ndal rek ñu bokk ci waxtaan sëñ Tuubaa dañu daan ñëw di ko di ko di ko di ko gane si waaye nañ daan jëflante ak ñoom ci ñi nga xam ne man fekk naa ko ci eh, eh, am naa firnde ci ne eh, noonu la Cheikh daan doxalee ak ñoom am nañ firnde it ne noonu la sax saxaaba yi daan doxalee ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fii buñ mosaan ñëw buñ jàppee dañuy taataan jàpp ma naan ko. bu ñu duggee nag yulub ci kër gi ci lay noppee sol mbaxana ci lay noppee soli dàll ci lay noppee tëdd ci lal waaw nekk ci euh, ci ci ganale leen bernde leen bu ñu demee ba yeewi kot maanaam lan la lu war a mën a ànd ak ñoom du ko ko baax du doon ci poosam du doon ci këram waaw bu dee matériel la dana ko jël jox leen bu dee lu nekk ci jibaam dana ko jël jox leen yóbbu leen nga xam ne kon ak bëggam ci seen tuwaat seen moom kenn warante wu ko waaw te loolu ñëpp xam nañ ni Seex Ibra Sëñ Tuubaa amoon na loxo sax mu ñëw bën na loxo bi di ko moocu naan naan ko bu mu saan jàppit Seex Ibra da ko daan taatante naan te loolu euh, euh, ku ñuy mu docteur Abdoul Ahad Sané borom borom xam-xam bu mag a mag jamono yi weesu rek doon nañ ci waxtaan ba mu defal mu ci bànd sax ba wane saxaaba yi ni ñu daan def yonent bi moom it moo moo moo moo méngóog noonu ndax bu bu mosaan tifli sax. sallallahu alayhi wa sallam bu tiflee sax balaa tifli waa laal suuf ñu ñu ñu ñu gàttandu ko jël ko lekk ko wala bu daanoo ci ñu for ko woon ko nee na mas nañ koy gàjji bu ñu ko gàjjee ba noppi mu jël deret ji jox ko as soxna ne ko tuural ma ko bi mu demee ba ñëw mu ne ko noo ko def deret ja mu mu nat mu nakk nakal mu mu mu insisté mu ne ko dama ko naan mu ne ko sa yaram aramal na safara ndax sama deret du jaax sa deret ji dem safara am na it euh, euh, yeneen xista yu bare bare yoo xam ni luy ni saxaaba yi Euh, maanaam noonu lañ daan teral yonent bi waaw kon kon mën nañoo jàpp ni daal ci wàllu mm, bëgg Serigne Touba ci wàllu taalibe euh, moom agoon na ci dayo boo xam ni euh, mënees nañ dayo bu kaaya la te mm, noonu la doomu Cheikh bi yëpp meloon nag day day koo ci koo ci wax ci moom rek moom ngay wax waaye mën nañ ne ñoom ñëpp noonu lañ daan dundee ndax seen seen seen seen seen seen bàyyi lañ daan roy waaw moo tax nag ku fekkee seen jamono. Euh, maanaam doo neex nax ci ak taalibe doo neex doo neex nax ci taalibe doo neex waar ci waar ci ak taalibe ndax da ngay xam da ngay gis ne nañ daan doxee ñoom nga xam ne loolu moo di taalibe te noonu seen cheikh yi daan doxee waaw. Euh, bu loolu jàllet ngir wane rek daf ko daf ko mu ko doon def def ko woon rek ngir maanaam ñàkk xam da ko dafa ndax intellectuel la te lool ndax wax naa ni moom ak sëñ eh, Assane ak ñu bëree bëri ci ñi Seex Ibra Fall ñi Sëriñ Tuubaa dalal la bokk ndax man naa ñu lim sax duñ ko ci duñ ko tudd waaye man toog naa ci boppam moom mu wax ni Sëriñ Sëriñ Tuubaa ko dalal moom sëñ Aliou Fall waaw te boo ko laajee sëñ Seex Mbay war nit dana la ko wax toog naa sëñ Aliou ni Sëriñ Tuubaa moo ko dalal baax. waaw mel na ne alxuraan tam lu mu fonkoon ndax sama maam di sama ndey man nee na ma. daanaa ko fekk mu toog waaye foofu ma saan fekk day teg nii tabul sanru tabul yi wala dara teg sarbe teg ci kaamil bi waaw maanaam moom dafa mokk mokkal alxuraan dafa jàng alxuraan ba mokkal ko bind kaamil rafetoon bind lool euh, jàng arab am brevet arab ak brevet français ci école de fils de Cheikh bi ko Cheikh Ibrahima yóbbu woon moom ak seen Assane ak seen Ibrahima Fandar intellectuel la woon borom ngeen doon waxtaan nga xam ne intellectuel naa la wax ni docteur euh, professeur professeur Samba Gueye mi nekkoon raam réanimation hôpital Dantec mm. moom ñoo bokkoon classe moom moom ñoo gënoon a école waaw waaw daan fii fi jóg moom Samba Gueye ndeysaan mu daan dugg euh, kon euh, maanaam mbindam dama koy wax toujours dama koy yéem ba léegi moo koy xalaat dama ko yéem ci rafetaay bu mu rafet bu dee mbindum nasaraan bi moom day mel ne Eh, mbind yu njëkk yi ñu daan bind ak plume ah eh, eh, calligraphie li ñu daan bindee noonu la bu dee bindi arab ci juwug arab gi làkk wa ak rafetaayu mbind maat lu yéeme la waaw ah, nga xam kon borom xam-xam la alxuraan jeet foo ko fekk bis bu xëyee si jàng lim bu bare bare bare bare mënu ma ne ni ndax moom daanaka daawul nelaw daawul nelaw man dama fa daan dem heure bii ñu toll timis booyalool ko fourneau kafteer ba mu bax su ma ko waxee mu ne ma nëggandikul as tuuti ma toog a toog a toog bañ ju liggéey ba mu yàgg mu fotta siwaat ma ñëw mu ne ma kiyal fekk fu ne mu fay la ñuy jàpp bu fajar waxtu bu ma ko fekk muy wërd wala muy julli wala muy jàng muy jàng waaw noonu ba fajar bu fajaree ci a nangoo naan ab kaas nga nga ngay xel kaasu ngañ mu jël naan daal lay jox ñaar téeméer wala téeméer wala ñaar fukk ne la mën ngaa dem. waaye noonu lay continuer bu faja bu continuer nag ci suba gi nag day day day jàll day jàng nag alxuraan maanaam bu ko nee nag noonu lay continuer di jàng alxuraan ba yoor yoor boo dellu si waatee ci dañu door a fekk ñu mu noppi. ñu def daan naa fi la guddi daaw daaw daaw daaw na la guddi. waaw li ma ko gis lépp wax dëgg yàlla jamono yi ma fa daan dem man lu yàgg yàgg te lu jiitu man it sëñ Cheikh Mbodj daan na fa dem sëñ Cheikh Xadim daan na fa dem ñeneen ñeneen daan nañ fa nekk noonu nekkee noonu gannaaw bi waaye ñoom it noona rek maanaam moom guddi moom daan fanaanee naafi la maanaam timis nii heure timis timis ba fajar moom da ko daan naafi bu julee bu bu julee fajar ba noppit day day jàng alxuraan ak i xasida ba yoor yoor ba waxtu ba huit heures et mu door a génn ñu tàngal ataaya maanaam waaw daan dunde kon fonkoon alxuraan la daan ko jàng loot nag ndax yoroon na daara ci biir amoon na daara fii ci këram ah, loolu sëñ Fallou Ndiaye nekk nañ ko am na daara waaw gaa sëñ Ndiaye sëñ Cheikh Mbacke Fall mi ak ñoom ñëpp lañ dale ak sëñ Abdou Rokhaya ak sëñ Cheikh Mbawor sëñ Assane sëñ Saliou ñoom ñëpp ci la nekkoon fi lañ jàngee man mi laa doon fi laa dale daan jàng waaye teewut dafa amoon ñoo xam ne ajjuma ju yàlla sàkk dañ daan ñëw wàcce fi ñaari kaamil wala ñetti kaamil ñoo xam ne moom moom loolu moom dañ ko dañ ko taxaloon waaw eh, ku fonkoon am njàng la wax dëgg fonkoon am jàng la fonk xam-xam fonk liggéey waaye daal li nga xam ne moom mooy li ko gënoon a ñor daal ci addunaam moom mooy mooy mbir mooy ak taalibe bëgg Sëriñ Tuubaa waaw liggéey Sëriñ Tuubaa musta am dara musta denc dara wax naa sànq ni lan na lu ma mos a gis mu yor ko luñ mën a jàppe ni lii eh, lu yokk confort am la maanaam lu koy yokk confort gën a yokk eh, ak nekkinam la gën ko neexal wala mu gën ko yombal wala ñu mën ko mandaxee ne lii lu luxe la musta am lu dul ab lépp boo xam ne bu rëy moom la daan yor di ko yor nii buy buñ ko indilee journaux yi wala muy jàng alxuraan wala mën doon moom la yor di ko liire amul wala woon loo xam ne mën nañu lii du tabax du ay bee du alal du dara non non non non du tabax bu baax du tabax bu fi demoon defoon na ko si ñëw it kilifa yi ko fi daan gane si moo tax mu mujj ko def waa kër Sëñ Fall yeeg yooyu ka sëñ Fallou waa ka sëñ Tuubaa yi fi daan ñëw moo tax mu mujj tabax fi benn bâtiment boo xam ne ngir seen jëmm la woon mooy bi nekk fii ba léegi nii moo fa nekk waaye bu loolu jàllee amutoon dara gi léeg ko waroon day daanu euh, maanaam daal adduna moom wax dëgg moom fonk fonk di woon sëñ Tuubaa amoon ci moom ndax ñun mën gane si daan nañ fi sax fekkante léeg-léeg wax nañ ne sëñ Saliou daan na ne fi sëñ Saliou ñëw sax ñoom ñëpp dañ fi daan ñëw sëñ moom amul woon ak ñoom waxtu wala bis moom waaw ah, li ma li wër ma ñetti fan yu fi du moom du ko am dana bis yoo xam ne dana fi ñëw ñetti yoon day dem ñëw dem ñëw dem day dem ñëw dem ñëw dem ñëw ci benn bis. amul ku fi daan ñëw sëñ Murtala mm, at mu ne daana ko gane si ñeenti ñetti fan ñaari yoon la ko daan gane si yoon bu ne dana fi am ñetti fan sëñ Saaliw daana ñëw yoon bu ne dana fi am ñetti fan. Euh, sëñ Abdou Lahad moom amul ko woon app jamono yooyu booba euh, ñoo sëñ Abdou Khadir moom it dana fi ñëw at mu ne ñaari yoon yoon bu ne dana fi am ñetti fan ah boobu ñoom ñoo ñoo fi nekk sëñ Fallou moom it euh, jamono yi nga xam ne moom la xawoon jamono nga moom itam da daan def noonu ginnaaw bi ne la daan def mu soree la ñëw bi waaye dafa daan ñëw moom itam dafa daan ñëw wala mu di ko woolu ndax moom moo ko indi Tuubaa moo ko nii ñëwul Tuubaa doon Cheikh Ibra ma nekk fi di sëñ Tuubaa waaw ah, moom moom moo fi nekkaloon njabootu Cheikh Ibra gi ndax ñu ci bari jamono yooya ñi ña nga Njaareem wala wala wala Thiès wala wala wala ci yeneen gox yi moom moo fi féete woon. sama sama maam di jur sama ndey moom nee na ma sëñ Abdou borom dër bee ko yar moom waaye nee na ma man fàttaliku naa ba tey que sëñ Abdou ci Mbàkke fu sëñ Abdou Massaane ñëw Mbàkke dana yónnee wóolu sëñ Aliou nee daana ko fa téye ay fan yoo xamante ne bii nee na léeg-léeg bis sax da ko ne Euh, xam naa ne li ma lay li ma lay doyee bis dana jot sax moo moo moo moo wax la ma maanaam xam da koy yendal ba ngoon jot rek mu yeeyu ko nee na waaye bis daf ko ne xanaa xamoon ne Aliou kër Cheikh Rafal li mu yaat yow la chambre ngay sama cër te nii day fonk cëram xam naa ne moom xam ni ko ma ko jamono yi nag yow Mbacke waaye loolu nga xam ne dégg naa ko ndax maanaam yaakaar naa ci ñi gënoon a sax jaxasoog moom waaw ci moom ci la bokkoon da bëggoon moom it bëggoon Cheikh Ibrahima waaw bëgg gi nga xam ne nag doomu sëñ Tuubaa yëpp bëggoon nañ ko it mooy mooy li ma leen wax rek mooy bëgg bëgg gi ñu bëgg Cheikh Ibra ak bëgg yi nga xam ne bëgg nañ leen ko ak doomu Cheikh yi bëgg nañ leen ko ndax sëñ Murtala am ay wax yoo xam ne sax euh, ak Abdou Khadir yoo xam ne ay xissa yoo xam ne da nga koy ci ñu koy xam ne ay nit a ko fekkee ñu di ko wax ci moom waaye du yoo xam ne koy war mën a wax ci ay ay ay ay ay rajo yooyu waaw waaye xam naa daal moom wax dëgg amoon nañ ci moom ak cofeel lool lool lool lool lool lool sëñ Sow bi nga xam ne daawul génn moom moom moom moom moo fi daawul ñëw ginnaaw bi moom it dem naa fa ak sama yaay benn bis mu laaj ko ne ko ana sëñ Aliou mu ne ko sëñ Aliou day ma nga fa ma nga fa Mbàkke mu ne ko ah ma ne sëñ Aliou moom namu naa ko lool waaye nag maa ngi moom dama ay gën duñu duñu maanaam dañoo mën a euh, euh, euh, dox waaw loo xam ne sëñ Tuubaa daanaka moom daawul génn këram waaw dañoo bokk jikko guddi lay génn guddi man daana génn daanaka wër Tuubaa signal yëpp noonu daan def léeg-léeg li ma wax ni nii balaa julli wala bu jullee ba benn benn jamono daana génn nga ànd ak moom wala moom dong mu ànd yoru fetalam day dox ba ba jumaa ja wàññi ko wala ngay génn muy wër kër gi yaakaar naa eh, sëñ bi toog ngóor si eh, Aliou Diop mii moom yaakaar naa ko ñuy xam lu bare bëri lu mën a la ndax ci daara ji la nekkoon ah ñoom ñi danañ ko xam waaye ñoom nekkuñu waaye moom mii li ma leen wax dana ci xam lu bëree bëri ndax ci moom ci wanag bi la fi la fi la fi la la màggee waaw kon moom mm, képp koo xam ne daal euh, xamoon nga ni Cheikh Ibra nekkoon ak Serigne Touba mën ngaa am lu la laar ne noonu la doomi Serigne Touba yi waaw maanaam ak doomi Cheikh Ibra yëpp nag ni ma ko waxee waaw kon loolu. yéen na ma xam naa fi lañuy wàcce suñuy kàddu sax mooy mooy tey kër Cheikh Ibra boo dugg kër doomi Cheikh Ibra Fall boo dugg fekk fa mu Serigne Aliou boobu mel na ne jaxasoo ko foo ci dugg rek loolu itam maanaam tàmbaleel ki sëñ Mourou Moussa Fall la ba yëpp dëgg la maanaam waa kër Cheikh bi yëpp ñoo ko fonkoon lool nag jox ko cër ñii ci dooni magam dañ ko joxoon jox cër rakk bu mat sëpp moom mu jox leen cër bu mag bu mat sëpp ñi ci dooni rakk rakkam itam dañoo na joxoon féete woon fii mag war a rakk ñoom it ñu ko euh, fi euh, rakk war a mag waaw yaakaar naa euh, sëñ mm, Abdou Sakor moom moom moom daawul wax sax sëñ Aliou daan wax naan euh, rek sàllalu ko daan wax sëñ Aliou saa mag ja wala sa mag ju baax ja sax la daan woote waaw bëgg nga ko bëgg cofeel moo tax mu ñëw dëkk fii ak moom waaw comme noonu ko doomam sëñ sëñ sëñ sëñ Mbacke Fall moom xëy na dañoo bokk waaye mbokk koo jiit ak xaritoo am na fa sëñ Bada mi mu ko tuddee sëñ Bada Mbacke ñu fi jóge barki démb moom dafa muritu ni ma ni Aliou Diop mi def laxasaayu di muritu di bay di root di maanaam lépp lu mu doon def rek ku nekk muritu noonu la def ba ba ba wàccee ko sëñ Bass alxuraan ci boppam it wax na ni euh, sëñ Mbacke Fall moo ko ni moo boole naa leen ak sëñ bi waaw dem ci sëñ euh, ak sëñ Aliou Fall moo waaw sëñ Bass sëñ Mbacke Fall sëñ Modou sëñ xam ne mooy taw Cheikh sëñ Bada Mba sëñ Bada Fall Bada Bousso mi mu ko tuddee mi ngi Mbàkke gii ah waaw nga xam ne kon ñoom ñëpp a ko joxoon cër tey duñ ko ko tuddee dong waaye dañ ko tuddee ba yëkkati ko jox ko ko. sëñ Modou Mbène sëñ Aliou Fall Mbobène. sëñ Aliou Fall Mbobène sëñ ko tuddee waaye teewut beneen doomu bu ñuy wax sëñ Cheikh Modou Mbène fii ci kër gi la yaroo. sëñ Cheikh Astou Ndiaye mii doomu sëñ Moustapha Fall fi la yaroo sëñ Bada Bousso moomu nekkoon na fi sëñ Bada Mbacke wax naa la fi la yaroo sëñ sëñ eh, bas alxuraan noonu sëñ Aziz mi nga xam ne mooy moom moo doon moo moo toppoon ci sëñ Sidi nekkoon deuxième xalifa sëñ Mor Talla noonu wax naa ko sëñ Bada Bousso wax naa ko na dañoo bëri na la lim na ko doom ji mu tuddee sëñ Saliou mais moom la ko joxoon sëñ Fallou sëñ Saliou Baye Fall moom it fi la yaroo ba màgg fi ba a ngi nii sama gannaaw fi la gën a adduna loolu ba tey day fonk fonk gi ñu fonk Cheikh Ibra rek ndax suñu Fallu boo ko seetloo maanaam cër bu ñu jox Cheikh Ibra dafa yéeme ndax nawloo nit moom weesuut maanaam ñaata euh, ñu bokk ci njabootuk Cheikh Ibra la sëñ Fallu yor ñaata soxna Adama Fall soxna Daba Fall soxna Bousso Fall maanaam mënoon lim ak soxna Mam Sey ah yaay sëñ Abo ba ci yaay sëñ Abdoulaat ambassadeur sax soxna yaa yaa Anta Gueye moom it sëñ Moustapha Fall sëñ ko jox ñaata ñoo xam si njabootu sëñ Fallu yor ay doomam mu jox leen njabootu Seex yi ah loolu loolu bëgg nit ak fonk nit mënu ko weesu jëlee yaa nag bi nga xam ne moom mag ci jumaa ji gën mag ci Afrique nga jël ko tuddee ko koo xam ni euh, du jullikat ah, wax ni moom rek ngay roy ci ci ci taalibe ni ngay royee ak muñ ci suuf kese waaw ah, kon ñu tam moom gis Baara Mbacke Euh, yaa say Mbacke mi ñu tuddee yaayi Cheikh Ibrahima maam Seydou Ndiaye barki dem la wàcc liggéey yaakaar naa daa ko fekk Mbacke xoor ci magal la moom moom moog sama yaay ñoo bokkoon doon wujjee sëñ Abbas Bousso yaay mooy Bousso waaw yaa say Mbacke moom euh, ñaata lamp nag këram waaw maa la moom képp ku sëñ Bassirou jur la nga amum lamp ah sëñ mii ki mu ko tuddee dafa dafa wàcc liggéey dafa na ko doom waaw loolu dina ko doon dina ko doon dafa dafa ci liggéey dina ko doon ñu bëri ñëpp ko ñëpp waaw loolu lépp cofeel gi ñu am ci rek waaw te moom mu nekkoon fii gën a jege jege ñoom ñu ñu ko ci firndeel waaw loolu loolu la ci amoon Cheikh Ibrahima moom sëñ Aliou conseiller am la woon moom waaw moom daan waxtaan ak moom ci lu bëree bëri di soog moom waaw kon waaw loolu daal moom lenn la ci liñ mën a wax loo xam ni xam naa ne moom bëri na ci xam-xam bëri na xam ne jàpp waaw li ma jàpp waaye eh, yow xam naa ne boo ci xamul dara ah yaa sama xadi ndaw moom yaa soxna mbenn moo ko yoroon di bàyyi di bokk di bàyyi di bàyyi Cheikh Ndaw bàyyi waaw moom Babacar Ndaw ah bari Ndaw moom mu ko tuddee eh, Ndaw tuddee moom it jeex mu ngoog na waaw mu ngoog mag la woon man ñii yëpp nii muy mbokk yi muy taalibe yi muy ñëpp amoon nañ ci moom cofeel goo xam daal cofeel bu boo xam ne yàlla tax yàlla xam ne tax ñu jox ko ko ndax ñu bokkal ñu bokkal Cheikh Ibrahima bari na waaye ñoom ñëpp ñi ay ay xaritam lañ ay ay ay ay magam lañ wala ñuy rakam waaye ay xaritam lañ it loolu doon itam jërëjëf waa kay eh, di santaat baax sant Serigne Fall moom Serigne Aliou Fall Mbawar ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal baax te dolli ko wér eh, waxtaan wi eh, defe naa àdduna bépp nga koy topp ci biir réew ak ci bitim réew di jaajëfal bu baax a baax na Assalaamy TV académie Minane ak yeneen site yi fi teew yëpp ci waxtaan wi ma spécial kan mooy Serigne Aliou Fall Mbor ciy jaar-jaaram di ñaan bu baax su borom defal ñu ak dégg ak topp waaye defal ñu ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall ngërëmal Serigne Aliou Fall Mbor wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh